mës a gis lu mel leen waa Ndakaaru tabbi jinaani ci juma juma ji di Masaalikul Jinaan xoolal liggéey bi dëgg lii lii ku dul Serigne Touba mënoo ko lii du état du kenn lii Serigne Touba moo ko mën alaaji Mbacke Faye yàlla na fi yàgg yàlla na fi dund lu téeméer te mu ànd ak wér amiin te ànd ak wér te ànd tanam nu may lu damam damam lamal sange Tuuba tanam jumaa sampal Serigne bu biir capital ba jumaa ju rëy la ca biir diggi wil ba jumaa ja kenn du ko laajte fis na ne jant njoloor ba xuwaay taxaw di ko seeni ma faw xalamp bu ngor ba ku ne ngi yéemu banaa cey masaali kaare ca taar ba mar bomba kalu temba jaxal na sax ñuñ Europa lampam ñuy seeta taaru leeru guddeem ne bëccëg ba xool min bar bi couleur yi biir yamu geneen dëgg gi décor ba buntam yëpp ak na mu yañ njeeg weeram ya wër ca xubaam ba set gaag set la booleeg set du bu yéegee ci min barbar bi fee mooy taxaw min barbar ba nga ne ci kaw bu wàccee nga min baru oor ba tapeem yu nooy yañ ko maane fa tir kilal ko ca dër ba sonoom ba set nga bu jolle na dam nga wees dëkku yoof ba te istijoo yamu àndal noppal na gaayu peres ba fu waay taxaw nañu lay gis kamraaya war na ko fépp yàlla sa borom mu sànni dërëm ci loxo kenn du laaj te fu sa maam rek ko def ay mbakk yaa ngi def li nga doon ku sa maam rafaatale jumaa faat waxtu war na ay mbakk yaa ngi def li nga doon ay mbàkk yaa ngi def ku sa maam la fàttali juma faat waxtu waru la wallaahi wala Abdoulaye la ngir bi tabax li ci dem ci milliard te yem ku du bamba du ab état ko financé du et di banque du baytin al ya ca faasi du yooyu ko wet du bayba murid yi ak ñañu xàndal ñu jiite leen ne fa Tuuba nasaytu bi seba bammat defal ko bamba fa goxu ba ngir nag Dakar dafa jooyoon ndax am mettitu ca xol ba bu noddee na ñëpp na julit te sëñ ba mag dafa jaaroon yàlla yan ko yanam ba koy sonal di ko teesal te koy mettitu fa nii ba di euh, ñaari nguuteef yelu siiw la ba mbayaxal histoire ba waaye walaay mi ngi muñ tey xam ne fañ nanu góomba jumaay masaaliku mbég la way fay na ca booba bisub juleem nga bu ak seenu kañ fa ahmadu bamba tabis la nag bunu waajal ko mënta teew ca jataay ba kom dooni ak ñépp ñëw ca daloo ba Cees ak Matam ak Ndar Kawlax Luga goxi Tamba Kolda wa Kaasa wa Séeju wa Kéedugu dëkku or ba loo kafrin wajul mbelu mboolem seen nan wuy bamba afrique asie europe amérique fu gëme rabba woonañ la woola ca bis ba nde nga teew si fa booba ca septembre wile lay doon wen sept doon bisu mbég ba sunub sëriñ sunu yaakaar ka wuutu maam jafa tuuba seex muntaxaam nu basiirin murid bu dëggu ca xol ba sunub sëriñ sunu yaakaar kawtu jafatu ba muntaxaab nu basiirin murid bu ca xol ba mu jiitu mbokku ya dar mu def Dakar ayu bis al ilaahu bu booba xam ne kenn du Bàmba ku def mbégam sa mbégte dooral sa mbégte ba booba ku def mbégam naqarul xol na jooy ba matt loxoom ba yor yor tey bi fay na ko yal nan ko fekke tatal ko te teew ca yoolu ca yool ba te fay ña ko saytoo ña leen dugal ca liggéey ba ak képp nit ku ca def lëf nu jot payam bisu pay ba amiin barke bu rasoolu yonen ba ak

samay bayit mi ngi nooni def naa ko haddiya Tuuba yal nan ko nangu ta def ma murid bu man ci Bamba te nan lu rëy li nu dëg ma ndamam la moog ba ci la mu waxoon foo jumaa ju rëy la taxoolu samp ca biir diggi ba jumaa ja kenn du ko laajte fis na ni jant njoloor ba fu waay taxaw di ko seenu ma faw xalamp bu ngor ba ku ne ngi yéemu banaa cey ma saali kaare ca taar ba mar bomba kalu teen ba jaxal na sax ni Europa lampam ni si ka taar leeru guddee ni bëccëg kuloori biir ya mu àndal geneen dëggi dékoor ba buntam ya ak na mu yanjeeg weeram ya wër coxu bamba set selam gala booleeg se cilim ya ca ba liggéey ba wér na waloore du gis nga min baru oor ba tapeem yu nooy yañ ko maane fatir kilal ko ca dër ba sonoom ba set ga bu jolle na dam ga wees dëkku yoof ba te istijoo yamu àndal noppal na gaayu peres ba fu waay taxaw nañu lay gis kamraaya war na ko fépp te kenn du laaj fu waxtu fu tollu gis motoram xurum ja set na te yaatu garab ya wër na ëttam ya nee nañu colleet ca kaw juróom di limam ba man billaahi wallaahi ii mootinaa ci sëriñ ngir bi tabax li ci dem ci milliard yem ku du bamba du ab état ko financé du et di Europe du bayti maal ca faasit du yoy ko du pay ba murid yi ak ña ñu xandal ñu jiite leen ne fa Tuuba ñoo saytu biit seba bammat defal ko bamba fa gox ba ngir nag Dakar dafa jooyoon ndax am mettitu ca xol ba